non <laughs> nuyu naa la nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne rek ñu ngi saxoo di seetaan seen télévision mag bi lee mu di Walfadjri leeru jamono mhm. la voix des sans voix premier numéro de la semaine ci seen émission bu mag bi lee mu di Nepad musical may sargal maman waa salon xayta ñoo jaar fii sa xar bi sa këpp mu bees bi waa ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu xale yu baax waa salon xayta ak mami ak euh, mami musa ak ki xamul woon 14 février démb la <laughs> <laughs> <laughs> ay tey euh, maman sama sama xarit bi sama xaritu xol fii laa def kontaan naa trop. ak mën na nangu xaritu trop ma gis nga dégg lii mooy nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoom laa fekk ñoom Amar Bun Xataab Guèye ki nga xam ne rek moo di maa jigéen euh, donc tey am nañ fi ñaari gan. Mhm, euh, maître Abdoulaye Wade. Mhm. ak ki nga xam ne rek moom moo di Mbaye Ndiaye. ku toog <coughs> maître moo toog. <coughs> Wade nuyu nan na di la nuyu. maa lay fay. di nuyu booy bi booy génnee di nuyu encore une fois les dames ñu lay fay di rafetlu seeraay bi ci plateau bi jërëjëf euh, waaw euh, danoo dégg nga yëkkati ay kàddu nga ni Sonko amul expérience est-ce que da ngay dangay da ngay ràccal sa doom euh, Karim Meïssa Wade moom mi nga xam ne puusul paasul man mi mhm. ma yow yaa ne Ousmane Sonko amul benn expérience. waaw man kay loolu dégg naa ma ñu ne man maa wax xaw ma la di rajo. yow waxoo loolu. wallaahi waxoo yëguma fu fuñ ko waxee. dama dangaa yow dégg ñaar Ablaye Wade nee na Sonko amul kii communiqué ku ma dégg ma wax. waaw. mbaa dafay naax. PDS léegi ñoom ñooy toog rek di bind. Mm-hmm. naan Ablaye Wade <laughs> wax la di. wax na laa wax de waaye walaay waxu ma du du du sama wax de. kon du say kàddu. Eh, fu ma waxee su du na bindu news la. du fake news fake parti la. parti bi ñooy wax naka suñu hmm? la. <laughs> lu ma ci xam damaa xamal mbirum Sonko dara. dégg naa ñu naan xaw ma dafa demoon. fenn man <laughs> le sànqma gi ñu ne Abdoulaye Wade bind na loolu mooy li ñu sax. sax est-ce que est-ce naaxoo yow it. nag wallaay naaxuma lii ndox la ak waa Tera wala. <laughs> waaw moom la de moom la. <laughs> naaxuma yow yàgg nga ma invité sukkaa nga tudd sababa tudd Mamoun Mbaye. Eh? kii di ma jigéen. seetaan nañ ko ci Facebook kii kii ak ak ak rob ba. ñu tuddee ko nan. ak ak ak kii. kii Bésirou Touré. Ah, waaw xam naa kii Umar Gueye man naa ko ma. seen caméraman be mooy yore suusal si buy xëy. lay jàll. loolu kay leer na. ma ne dama ne. ah. ñoom ñoo bind seen bind si ma tuumaal naan Abdoulaye Wade wax na lii ak wax na laa ak wax na lii waaye bu du du samay wax. Georges bu doon loolu rek nga yoroon comme question. bu fekkee loolu léegi bu fekkee loolu du say wax. waaw léegi noo gisee li ñu li ñu teg Sonko. waaw dama la koy laaj mhm. dama bëgg nga def nga def ci analyse. deal bi nga xam ne gis nañu ko mu nekk une deal. loolu loolu mës na am ci samay jamono man opposition bu radical la. Mhm. Abdou Diouf fii la ma fi SAPS. ci lu mel ni may dem di def benn meeting. benn di yaa ngi ko rek naan laay nii naay naa dégg nga dégg nga <laughs> di ma saar mi Abdou Diouf ko yabaloon si mbaa du yow boobu du yow piège boobu daanu wuti loolu xam nga yooyu mhm. di yanka bi topp ma rek man fu ma jëm mu jëm ma mitin Kébémer di yanka bi ndafa mhm. ma mitin Louga gis di yanka bi ma mitin euh, saint gis di yanka bi ma ne waa kii lu mu demee ma woo da ko mais yow man gis naa ni Kébémer topp nga ba mhm. nga ba mhm. maa ngi nii Ndar yaa ngi waat ni mhm. lan la mu ne man daal maître man daal man daal yow paa am feeling nga mu ne ko feeling loolu ma man gis rek nga am feeling ndekete li muy def noonu ndere boobu jamono yooyu kii moo yoroon Walkman Walkman nga xam ngeen Walkman Walkman ndekete mi ngi yor Walkman bi di enregistré. kan woon enregistré ndaw si. ab ji dañ ko yónni ma man daal Abdoulaye dama laa gis ni ngay waxee ni ngay doxee daal. man daal ma ma ma jàpp sa copp. wax ko lan. ma xool ko. ndaw si jonga ma lool ndekete ni mu jëlee woog maan bi fii la ko bokk di ma jege. nga def nan man daal bi ma nee nii rek gis li xam nga wóog maan boo ci dóoree sax mu nekk ma ne ko yow lii la la. ah nga loxo ci ndigg bi. du laalu ci wetu kii laalu ko dama ne wóog maan bi. <laughs> léegi dama ni la mi ngi maa euh, euh, yow mën ah. nga def ba xam ni. waaw ah ah dégg nga ah ah naaxul déglu def yow. Euh, kii bi ñu ngi li nii. bi may wax ak moom. ci ndigg maan bi nekk koog ma ne ko lii la. après laa woo ñu dindi ko ndekete la. ma ne ko lii loo ci jublu mu ne ma Abdou Diouf. moo ne pour ma enregistreur. Ah. Senghor enregistreur moom it lii mbiru politique la. Senghor kan moo ko enregistré woon. moom moom mu bëggoon a enregistré moom tamit man daal <laughs> boobu tamit yu mel noonu. yow macha ak yooyu day am. yooyu day am man am na ñeneen yoo xam ne sax man bi ma nekkee ci nguur gi <laughs> jàpp naa leen. woo leen pale tegal leen ñoom it seen ay ay enregistrement ñoom ak ay jongo loolu ak politique dafa yàgg dafa yàggaam waaw. mètre mm-hmm. waa mën ngaa dem. jë jërëjëf. ni nga koy libéré ni wax noonu ay bind noonu tam yow ku réew nga. maam waxati loolu de. Ah. dégg nga li mu ma ah. de. sa maam la. Euh, jërëjëf mu nekkoon ki nga xam ne rek euh, moom moo di maître Abdoulaye Wade ñu koy souhaité Mireille Mathieu waaw ñu koy souhaité heureux ménage ki nga xam ne rek moom moo di Aïcha Aïcha Diakhaté madame Mbaye yow suñu njëkkee suma man njëkkeem la ah, parce que euh, na barkeel am ne dañ ko bind ci aras heureux ménage ma belle donc buñ jógee ci loolu dañ kontaan ci invitation bi. Mhm. <laughs> di rafetlu bu ba te waay bi ci plateau bi macha allah yéen moom saa yu ma fi ñëwee rek gis plateau bi aussi eh, mu gën a tee yanj. Ah, dëgg la ah nuyu naa la. Ah, bi nga fi ñëwee yàggul parce que mercredi nga ñëwoon. waaw waaw waaw euh, léegi Mbaye. xam nga yéen. <laughs> nga ne waaw waaw. <laughs> bul ma bàyyi sa sa sa li ngay waxoon ci suuf nii di ko wax ci suuf nii daa ko dañu sa maro bi waaye di ma bëri xel sa maro bi nga xam ne da nga sol sa part ñëw wax dëgg yàlla wane nga ni tey Mbaye Ndiaye dëgg nga waaw maron beige bi sañ sa nga telu rafet la waaw lii beige la waaye gisoo fi maron waaw ba ci mbaxane bi ton sur ton bëtam yee neexut waaw bët yi moom dafa jëm xam naa nag ci <laughs> kii la mhm. waaw waaye yegaleel waaw situation Sonko bi xam nga ni mënoo leen ci dara ah, ndax da ngeen yé waaw doo wa. waaw moo tax nii may wax ni naa ngi wax ak moom mu may ci taxaw. man situation situation Sonko bii mu nekk nii. Ah. yéen mënoo leen ci dara ndax da doon tere buntu këram ne di fa taxaw te ma nga fees dell ba tey. waaw ah. dégg nga. Eh, soxna si xam nga aussi situation waa jooju boo gisee li tax ma ciy batu neexuma man Ousmane Sonko ci boppam moo ma neexut. Ah, président Wade président Macky Sall nee bu ci kenn waxati dara de. Ah, keroog ñëw nga ba wax lépp moo tax wax dëgg fa yàlla bugg ma cee wax. parce que hmm. président ah. def ñu ko tere. <laughs> keroog de wax nga lépp nag. waaye wax dëgg fa yàlla bu baxoon te ni bi waxut wax. mooy hmm. wax yow bu boobaa lan ngay <laughs> waaye xam nga li am fee ci buntu këram. Hmm. loolu Antoine moo aayul. <laughs> munul Antoine Félix Antoine wax dëgg fa yàlla munul. parce que bu fekkee ne moom dafa ñëw. Mhm. Ousmane Sonko jaaxalul nit ñi. Mhm. fan yi passé def na commande bomb ay bomb. ay ay commande bomb yi. bomb bomb ay bomb ay bomb waa nag bëgg ñu mu jëm ci kaw di ko muy muy muy jëm ci ah, yi fee lañ commencé. fan buntu kër Sonko. di njoona gisoo bombardement yi am foofu Casamance. ci bomb yi la. dégg bàyyi ko mu continuer bàyyi ko mu continuer benn affaire. waaw Félix Ndione dafa war a xam ni. ayo Bignona nekkul Bignona donc mooy Bignona. Bignona fan la. kër cité kër góor gi koñu Ousmane Sonko la. ni mu waree def fee bomb yi noonu la waree fii tiire fii bomb yi. bu doon yow. ah ayut moom Macky doxee na ordonné na bombardement bi ñëw na. Ah, te président Macky dañ la woon bul wax. président Macky Sall dañ la woon bul wax. léegi nga ne président Macky Sall joxe na li nga xam ne moom moo di ordre pour jël ay bomb def ko eh, yaa ko wax. waxut buñ wax ci loolu de. yaa ko wax yaa wax. non def ne buñ wax ci maanaam. mais yow wax nga lépp bi yol bi. dee wax nga. foofu de foofu lañ ñu tere yow it nag del xam mbirum équipe am lii militaire la <laughs> ne lii mbirum armée laay wax ni bu fekkoon ne si kër góor gi. Mhm. comme que ñoom rakk yi moo seen nañ leen faale wuñu di sanante ay xeer di nga maam di toj bopp alkaati xoola alkaati bi ñuy saleen rek. maam mhm. ni dañ la ko. dëgg la léegi booy de loolu criminalisme la de. alkaati bi di wii sa bi muy diir ñi ngi koy diir. Mhm. mu yeex a tiire ñu tiire ko. dëgg la moo tax it na jël kaaw mu daal di daanu def kaaw ba nekka ni boo yaa koy challenge loolu defe nga ni rafet na ci mm-hmm. réew mi dëgg la mm-hmm. loolu nag ça risque de ki pour état war wone wane dooleem mm-hmm. sànni juróom ñaari bomb ci ci ci juróom ñaari bomb bu ko defee mbaaju réew mi góor góor gi ak Casamance koñu Ousmane Sonko war na koo def état bu sànni woon juróom ñaari bomb kenn dootu fa kon kon président Macky kenn dootu ko def dëgg am ngeen koy laaj. man dama ko doon laaj. waaw looy laaj léegi complot bi. waaw complot bi ñuy wax ci suuf fay nañ caméra am yëpp fa lañ ko nasee. Mm-hmm. ak kan moo nekk ci ginnaaw complot beeg yooyu. Ah, sëñ bi xam nga loolu mag yi dafa wax buñ ci wax waaye bu doon ne waxut nit buñ ci wax ma wax la ne bés biñ koy eh, def di ci waxtaan nga xam ni booba maa ngi toog mag yi toog eh, Félix Diome toog wax dëgg fa yàlla <laughs> ak ministre de la justice ñu toog wax dëgg fa yàlla. Eh, ñu daal di woo ñu daal di woo Adji Sarr Adji Sarr toog yaa ko lakk séeréer ah, maa ko lakk wax mbay aussi euh, dañ ne ci wax mbay wax nga ba pare loo ko wax ci séeréer waaw dama ne ko il faut nga fexe ba Ousmane Sonko rek non da ngay lakk séeréer euh, euh, na yëg boppam <laughs> après mu ne ma loolu amul benn problème après xam nga bi mu ñëwee daal ne ñu raayal ko ndigg gi ñu raayal ko ndigg bi mu après mu walbati. kii wax na lépp. Mm-hmm. waaye loolu yëpp wax. secret d'état bi wax am. na loo xam ne mais est que xam nga yow mais euh, mm-hmm. xam na ne yow genre bii nga lu xew ci bi yaa koy wax xam na loolu. Mm-hmm. soxna si dema laa bugg a xamal lan rafetalal say kaddu lu ko mooy fi nga jaaroon nag yaa xam ba respecté ko dinaa la fa jaarale. <laughs> yaa ngi dégg wax. wax nga dëgg de wax yaa xam ne waxatu ko. sa kaddu gi na na normal. ndaxte bu sa kaddu gi normalul eh, dinaa la dina ni nga respecté yaa xam xam naa ni mu def citation direct dinaa la ko ba tax foofu nag la yem ak yow na say wax di rafet say wax bu ñaawee te boo waxatee. xam nga lan dama ne la sax lii nga may def. ah yaa ngi commencé waat di dol. citation direct. avocat yaa ngi ñëw de. yow li nga